ñu ngi leen nuyu mbokk yi bu baax a baax di leen ziar nuyu suñu mbokk into yi ñuy bàyyi xel dañu séebar saa su nekk mbégte la ñu am suñu waree jàkkaarloog yéen ci chaîne bi ngeen tànnal seen bopp muy Dakar People comme nañu koy defee spécial lamb tey nag ñu ngi fi nga xamante ne mooy Parcelles Dior c'est un grand champion koo xam ne sa fa dëgg yàlla mbër la woon mu bàyyi mais ba tey mi ngi ci biir làmb ndax boo xoolee euh, li nga xamante ne mooy euh, écurie jàmbaar écurie Rock Énergie ci biir la bokk nee naa la boo xoolee 100 pour cent bi moom tamit dafay taxawaay bu rafet macha allah ndax bàyyi na mais mi ci biir làmb tey nag moom la dala ci Dakar People spécial la muy Batika Aïssa saa su nekk nee naa la moo ne ci li nga xamante ne mooy caméra bi ayaa ngeen ciy àndal ma dalal ko jox ko mu nuyoo après ñu continuer li nga xamante ne mooy waxtaan bi muy Batika Adja Batika ma lay ziar waaw ñu ngi lay fay euh, Dakar people ginnaaw bi ñu santee yàlla sant Seydina julli ci Seydina Mohamed sant suñu ñaari waajur am déet di rafetlu seen teewaay rafetlu seen ñëw am di ñaana dëkk bi ah, yàlla na ci yàlla wis ndox mu sedd yàlla na ci yàlla def daal lépp lu neex ci borom bi daal yàlla na neex ci dëkk bi lépp loo xam ne naqari na borom bi daal yàlla na ko borom bi dindi ba defalaat ñu leen lu neex ci dëkk bi askan bi loolu daal la ñuy ñaan ci dërëjey Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Batika namoon nañ la de. ñoo raw ñoo raw ñu ngi nii sant rek waaw ñu ngi nii di sant rek waaw di ñaan dëkk bi kilifa diine kilifa aada yi bàyyiwuñu kenn daal. waaw boo limee dañuy jum ndax ñoom ñëpp liggéey du rafet boo ci lim rek da jum yàlla na yàlla yokk seen taxawaay am den may yokkal leen wér yokkal leen kàttan daal ndax kilifa yi nu ñu jiitee réew mi ah, loolu rafet na muy kilifa diine yi yëpp ak kilifa aada yi ñooñu kenn amul seen fay daal ba ma gisee nit di wax ci ñoom sax damay metti ba nga xamante ni damay bëgg mais nit ñaa may calmer ni jarul di wax ñëpp a liggéey kilifa diine yëpp a liggéey bu dee sëñ Touba liggéey na alaaji maa fi bàyyi ñëf bu kunta Njaasaan Limaamu Laay bu kunta Njaay ñoom ñëpp dañu liggéey di référence yoo xamante daal képp koo xamante ni daal yàlla dimbali na daal nga bokk ci famille boobu yàlla eh, na la yàlla may wér daal may la gudd fan daal ndax loolu sëriñ yi daal bu doon ñoom ba léegi bu woon ñoom ba tey àddina kenn waxu ko daal kon yàlla na yàlla yokk seen taxawaay ak seen lépp daal ba tey Batika bàyyi nga làmb mais yaa ci biir làmb ndax boo xoolee bu ñu ne Parcelles ni ne Batika boo xoolee tamit 100 pour cent bi gars yi yaa ngi ci biir yaa ngi woo xale yaa ngi waxtaan ak. waaw dëgg na tey boo nee batika tey moo de boo demee ba âge boo xam tey bàyyi naa làmb mais tey sa koñ xale yu nekk da nga leen di jàppale ndax tey boo bàyyee làmb ni bàyyi naa làmb rek ni affaire soxor la wala leneen ndax dañuy jàpp ndax dama daan bëre samay rakk yooyu ñoo fi doon ne di ma supporté bu ñu demee ba nga xam ne bàyyi naa ñoom ñu màgg dañ leen di dollar kóllëre bi rek xam de di leen jàppale ku mel ni tey franc di mbër mu am comportement ci làmb am avis làmb am mën a mën ëllëg mën a jël roi des arènes indiwaat ko fii ku mel ni talfa am boo lim sax ñoo ay daam da ngay juum ndax ay mbër yu am carrière de làmb ñoo fi ne respecté jàmbaar jàppale ñëpp daal xam lool loolu comportement la loolu dafa rafet ci dëkk bi tey bu ma gisee tey xale yu mel ne da nga leen jàppale am de da nga jàppale jàppale boo xamante ne daal billaay wallaay damay dégg sax ci télé yi bëgguma ci après dinaa ci ñëw mais daal di ñaan daal franc yal na ko yàlla jàppale waa parcelle mbër yëpp daal ku lim anakona ku lim ngay juum am de samay booy xam nañ ñëpp képp ku ci mbër xam nga sa bopp ñi ngi entraîné demuñu fenn teel a tëdd ñépp daal damay damay kontaan su ma yeewoo fajar bay daw yi damay gis mbër yëpp te ba ci waa yoof yëpp ay ñoom mbër ca caatu yoof yëpp dama leen gis xam ne maa xam ne ñii daal vraiment eh, lu baax képp ko bëgg daal di daal yàlla leen defal jàmm waaw ak kii du combat nag waaw tey loolu tey boo gisee tey nit ñi ñëpp wax naa ne ko làmb dañu war a bokk ndey bokk baay mais ñëw yow sa baay tëggul làmb sama maam tëggul làmb nit ki tëgg làmb nga naan lii du kàmb wala lii neexul ñoom ñoo xam lu neex ñoom lu neex mënuñu koo xam mën nga ni lii dafa neex wala neexu yow doo ko fekke nañu promoteur bu demee ba tëgg laam nañu maanu ci ay mbiram franc bombardier ku lamb daax ko ndax rëg dafa bëri bombardier chaque jour moo ko même pas de six mois am de bombardier xolaat ni xa rëg-rëg franc ci të baal ma mayet joxaat franc jël ko ñu bëri loolu da nga ko war a ñaanal sax mais du lamb bii mooy lam ñoom dañoo xam lu lam tëgg nga fi ñaari xale nit ki jaay sax trois cent mille yu mat si billet nañu bàyyi loolu ñoom ñaar tey Reug Reug tey franc mbër la tey bu bëree tey yàlla def ko mu am ndab ci Bombardier am déet kenn sañu koo bañ na droit ne jël franc moom la concerné làmb mën na neex ba ko ñooñu ci taxaw dinaa leen waxaat loo ñu dégg ko waaw franc calculé ko sax xale la mi ngi jaar ci yoonam mi ngi no am na ay saf mi ngi de am na kilifa ku amul kilifa doo tekki dara ci làmb waa mi ngi no franc dafa am kilifa am ay njit nii ngay def nii ngay def moo tax mu def noonu mais ñu bëri tax ngel ngel ñuy fay ay nit naan lii du làmb nañu bàyyi loolu yooyu ñu bàyyi loolu ah lii làmb ñoom xamuñu ko bëriwuñu seen maam bëriwul seen maamaati maam bëriwul ñun dañu juddoo ci lam xam ci làmb def lu ne ci làmb kon loolu affaire du soxor lay nuru faa man bëgguma loolu nit ki da nga koy ñaan promoteur yi doon benn bokk ndey bokk baay mais boo bëggee ne kumba am ndey kumba amul baay lool dafa ñaaw sax loolu rafetul si askan loolu rafetul nañu bàyyi lépp ku bëgg combat jàmbur nga daw jël ko ku def léegi loolu baaxul jàmbaar dafa nekk maanaam société boo xamante ne spécial mooy jàmbaar ñi ngi tëggal làmb nit ñi ñi ngi jàppale nit ñi ñi ngi bëmbër duñ lay fay ba wis la ba daal di ko nuyu au passage nit ku baax a baax a baax a baax mooy Mansour ba ndax baaxaayam boo xooxee rek boo nee Mansour jeex ndax per ba ko gënoon a yéeme papaam mm. barke alxuraan père ba ko gënoon a yéeme mm. tey loolu tey comportement la am de ti Mansour calcul xamul sàmba xamul de xoola tey jigéenu jàmbaar yi ah le 8 mai bi dañ ko yóbba le 9 mais barke alxuraan ma woo jigéenu jàmbaar yëpp ci boppam ah dañu mobiliser wu am de di ko def ci terrain basket bi inte 19 xoolal loolu mu rafet ah ñëpp mobiliser wu xam naa le 8 loolu tombé dañ koo mujj def le 9 di tombé samedi ah, barke al bàyyiwuñu kenn invité góoru jàmbaar yëpp ci terrain basket bi ñëpp àddina ñëpp ñu ngi leen ci woo ci terrain basket bi nga xam kooku jàmbaar mi ngi liggéeyal nit ñi jàppale nit ñëpp def don yi lépp kii daal jàmbaar ñi bëri nañ bëri bi wax boo ci limee da da ngay dendali comportement jigéen ñëpp daal ñu ne seen xol ñoo ko xam yàlla na leen ko yàlla defal daal ba le 9 mai bi ne ñu ngi leen di xaar ci terrain basket bi fàttewuñu kenn daal ba ñu xam ne ñoom maa sagal si jigéenu jàmbaar yi xam ne kii daal jàmbaar ñu ngi liggéey def ñëpp daal waa góoru jàmbaar ñëw dalal leen ñëpp jox nañ leen ñu ñëw si podium bi jàppale seen i jigéen waaw bu ko defee daal àddina day jëm kanam waaw mais est-ce que Batika loolu découragé loo promoteur bi nga moo tëgg combat ndax boo xoolee Reug Reug ak Bombardier jaar fi ñu mu jeex ñu def euh, ak Franc boo xoolee promoteur bi ko tëgg est-ce que nekkul du tax promoteur bi découragé ci loolu. kooku mu waaw wax nañ mais mënuñu mënuñu découragé le ban président jàmbaar Mansour mënuñu koo def kooku jullit la. kooku jullit la. waaw jullit nag pour nga découragé ko day metti waaw naa fi nekk neex a jàkka dekk bi ñuy jullit dëgg. barke alxuraan bu xamee ne yàlla noppi na Mahfoud Brahim mënuñu koo dekku ñoom dañuy wax wax ju ñaaw après da ngay dem ba bëggaar ci génn mu tëla nañu bàyyi loolu xamuñu loolu am ñu dem leen daan dee jàpp di bëre ñoom ñëpp seen combat fi lañ ma fekk waaw ay mbër nekk ci ay Ousmane Diop loolu combat loolu rafetul ay commencé may dégg ñeneen ñu wax ay lii du làmb loolu lii bii ak bii moo nekkoon làmb ñoom xamuñu yooyu lañ bàyyi loolu nañu ba bëgg a daal nit kii mënuñu koo daal ndax kii du muy jàppale doomu aadama ñoom defuñu ko seen xeet defuñu ko seen barke Serigne Touba Mbacke maa gën a xam làmb kenn xamu ci làmb ah, kenn xamu ci làmb ñooñ di taxaw ñoo ñëpp fekk naa seen bappat fu leen Ousa Sow daane sama kanam fi te mën nañu jur Ousa kon ñooñu mënuñu wax ci làmb man dama bëri ñëpp kenn mbappat dama ci def spécialiste ba ma duggee ci làmb yàlla dim ma am genou ci la commencé sama li perte samay combat arrêté amul mbër buy takk fu yëpp ñu ma ñu ma daanu foofu kon bu ñu taxaw di wax gënuñu xam ne ñi làmb dañu seetaan làmb xam làmb man sama atay boo dee xool seetaan naa ay ñoom baabu yi ñoom ñëpp ay mbapat di ànd ak bu ndaw mbapatu jaar yi lépp dem naa seetaan ay saa yarax seetaan ay Jules ñu ngi doon te ñoom am ak fukki junniyoon am de paate fa xamam ak te seetaan naa seen lamb ay Saa Yarax yëpp di même piqué ay Ousmane Diop Thiaw ñëpp seetaan naa seen mbapat ba muy bëri Ousa yëpp seetaan naa seen mbapat kon man xam naa lamb bu ma kenn dama xam lamb dama xam lamb waaw mi ngi dama xam lamb de kenn gënuma xam lamb dama xam lamb li ma lay wax ci lamb lii damay xam dama xam lamb bu baax a baax baax drapeau chef d'état ba ko zàlloo di jël daal yëpp fi la ma fekk waaw kon xam naa lamb waaye xam naa lamb mais ndàmb tey loo ko xam-xam-xam maanoo gën a baax ci loolu dangay ah, ngay maanu nit ki da ngay maanu ci wax waaw la waaw waaw maanaam ñu làmb du caaxaan. promoteur mënu jël ay ça fait ay million def ko ci làmb bëgg ci gañ wala jàppale ni yow ngay taxaw naan lii bi combat bi neexul ak neexuloo c'est pas normal. waaw dafa Franc daanoogul ci làmb Franc am dafa fi ci làmb moo dangereux Franc mosul daan presque douze combats Franc ñëpp ah ay combats spécial yu métti ay combats yoo xam ne ñoom mbër yooyu de kuñ ko ci joxoon doo am balaa timis nga ñibbi sa kër mm-hmm. mais Franc dafa ñoom mobiliser leen bëri ñoom xeex ak ñoom combat bu neex dóor leen daan leen ah ay kii daan naa ko mbappat vingt fois kii loolu du làmb waaw doo fookul làmb tey boo dee xool exemple tey Ousa Eumeu Sène bëri nañu mbappat lu bëri bëri bëri Ousa mu ëpp lu mu daan ci mbappat mais bañ demee arène Eumeu Sène da koo daan kon ñu xam ne ñun xam nañu làmb mbappat ay maa daan kii quatre-vingt-dix milliards maa daan kii ku maa loolu du làmb ah, mbappat ak arène bokkuñu mbappat ak arène bokkuñu waaw mën nañ la dóor nga ah boo doon cent volts ah defe quinze wala douze am de ñu fekkaat la fa nga defee deux ñu laal la nga defee wan gis nga yooyu ñoo am yu ñu rafetul nit da ngay wax lu rafet ci làmb ñu xam ni kii kat jullit la ñëpp la maaseel yamanteloo mi ngi noonu ba loolu mooy yoon bu ñu ko waxee Fatima day am mais man bëgguma ay def lii du làmb ki wérante mënuñu mu nekk xale bu ndaw ah jàppale jàmm jàppale ñëpp nekk président jàmbar di def ay social di jàpp lépp bu tëggee encouragé leen ko mais boo xamee làmb encouragé leen ko ah lii kat bëgg na bëri ñaari xale yu fi jox na rëg rëg daan ko muy joxaat na franc lool lan mooy lan mooy problème bi loolu du loolu amul problème loolu amul problème am de luy problème bi ñoo nga fa stade ba waxtu julli jot te wàccu ñu julli loolooy problème bi nañu may nit ñi jàmm ak salaam ah waaw waxtu julli jot waaw dajale waxtu yëpp waaw dajale waxtu yëpp waaw waxtu boo koy dajale du doo ko dajalee noonu si lu am importance nga koy dajale ah, amul importance nit diine bugg ko boo ñëwee foofu kon ñoom lañ ñoo war a seet seen bopp di diine bugg loolu waaw boo demee cent ans waxtu yëpp fekk la ci jàkk ji loolu la diine ndax foo koñ ba ñu de koñ ja laamu ne jàkkaa nga fa te génn ñu dem julli ju fa ñëwaat waaw de waaye man fa laay ne gisuma kenn ku julli man ma ma wàccee di julli gis kenn julliwul foofu waaw waaw paa mag ñi laa wax foofu waxuma xale yi mag ñi laa wax foofu noonu mag ñi taxaw ci ay kaas làmb yëpp ñoom waratuñu kaas seen kaas mooy waxtu yëpp ñu matale ko ci jàkk non déet doon meruma déet ah. naqari wu ma sax ndax naq ndax ku ne am na tàkkusaan mu ngi noonu léeg ñu daan léeg-léeg nga bëri bëraat jël làmb yoo xamante pour yow ma pour ñëw nga jàll ci mais doo mais franc làmb tension yëpp la ba lépp làmb jànq la oh, nañu bàyyi xale bi mënuñu koo def la kii gëmul loo ñor kii xale bu ndaw la respecté ni jox ñëpp cër mm-hmm. ah mais kon franc franc lii du làmb lii du làmb lan mooy làmb ñoom ñoo xam luy làmb mm-hmm. ñoom tëgguñu ko tëggaanuñ ko duñu noppi ko rëg rëg bi ko franc bëggee dafa bañ rëg rëg dafa bañ waaw mënu toog di xaar Reug Reug dafa bañ ni bëriwul a Franc pour Franc nag xale la jàmm lañ ko ñe dina dem ba ci kaw Reug Reug dina bëgg a bëri moom Franc di ko ni soxlawuma na jaar yoonam na ni dañ dul àtte dëgg man ñoom ñaar ñi yëpp laay jamale ay mbër la ñamaleen jëm mais Franc laa gën a bëgg sama rakk la balaa ngaa dàq kéwél muy dugg ci biir àll dàq ko mu dugg sa biir kër waaw Franc laa gën a bëgg duma ko caaxaane parcelle duñ ko caaxaane parcelle barke alxuraan kër mbëru parcelle amul kenn xam dañ ko ciy jaaxaane ba ci ay talfa yooyu yëpp ay mbër yu jox nit ñi cër expérience ah yaa bëgg jël waal indiwaat ko fii kon bu ñu tëggeel na ñoo xam ne ñu waxante lu leer mais lii du combat combat wax ñoon maa ci wax na promoteur ñoo xam a fuuf suñu jar barda waaw tey buy gis lu baax jàppale parcelle du ñu nangu kenn koo ko salfaañee am de mi ngi noonu ku ne ay caaro yi ngay faral wàllu ko bu taxee wax lool ay rëg-rëg lii war rëg-rëg la du làmb lii la comme ñoom lan rëg a bombardier waaw mi ngi naan ñi ngi naan kombi laa du kombi hmm. ah loolu rafetul quoi man bëgguma loolu day tax ay ennemi am foofu seen biir wala kii ñun fii Parcelles kenn mënuñu fi jaxase wala ñëpp jub jumale añ hmm. am siraatal mu saxib hmm. franc xale la am de tey coin ci tey franc jël na coin chèque jël rek am de man mi tey boo ma doon jox coin chèque bombardier bombardier laay dem jëli am de te ba ma gëjee bëri mat na sept ans wala dix ans néeg yéegal sama niveau mu mënu ma bëre sept ay combat jàng nga bëgg ma ci tegaata benn kër am de damay dem damay xool leneen dafa jot pour mu xool leen kii ñëwul pour jël ay dafa bëgg a defante ponk li sa kaw ñoom la bëgg te ku mu ci bëre doo am deux minutes mu daan la moo leen man moo leen ëpp doole musul tox musul naan teel a tëdd aw ci lu ko diineem teg lu si ko li ko seen kii teg moom la jëf amul jot boo gisee France da nga naan lii wala jotewu kenn da mais nit ñi ñoo nekk nit ñoo xamante ne du ñu wax dëgg da ah, dañoo foo senegal moo bëri ñu foo barke ah, dañoo bëgguñu foo faux dañu bëri ñu faux ay faux type ñoo ne Sénégal ay faux type pare naa du am mi ngi noonu amul caaxaan amul def def fa dara indiwul dara entraînement jàpp ñëw ne pare nga bëri bu ñëwee day bëri combat am yëpp a neex boo ñëwee mu ñëwul boo boo taxee mu ñëw mi ngi noonu quand que ko jàmm mais plateau yëpp damay gis ay Lamine Lutte TV di nit ñi foofu noonu ku ne ci wax ay ñuy wax dëgg yi nañ ñu woo ñëw ñoo fa mën a wax ñoom ñëpp kenn ne ko ay ko ñoom nañu xooli jàkk lii mooy jàkk jàkk jee moo gën a jàkk ji yooyu ñu war a dem wax foofu am de nu seen soxlawu seen analyse ci làmb boo demee ba am 60 ans kenn soxlul sa analyse silam wala ay 70 ans yooyu loolu analyse jàkk la ñu soxla waaw jàkk analyse jàkk lañu ñu soxla waaw ah jàkk ji kat ndox mi foofu dañu war a faat fii beneen robinet do mbedd am nañu ne fii kat ñu may leen ndox loolu mooy analyse pas yu ancien yooyu noonu dañu war a bàyyi dem dingi ne ndax dee day bette nañu wax nu rafet nañ def tersatation du xale bi du tëgg làmb ñu bëgg koo sabotage ko salfaañe foo dem am nañu mën du ñu nangu loolu duuboon nañu duggadu ci ne mais yooyu wax yooyu su ko déggee du ma neex comme Franc xale la bombardier di mbër deux fois roi des arènes am daan ñëpp tey drapeau ay mbapat bombardier taxu seetaan ko ponkal ci kaw ñëpp bëgg mel ni bombardier parmeres bi def bombardier ñëpp moom la ñu bëgg man mi tey bu ma repaanoo ci bi damay bëgg parmeres bu mel ni bombardier nit ku baax dafa ma doon woo téléphone ñi ñu dégg nit ku baax ku yaru la am de mi ngi noon ah mi xam loolu comportement teewul bombardier nit gënuma koo bëgg Ah, mais ci combat bi damay ñaan yàlla na ko Franc daan jël bu set bu amul benn werante daal ñibbi am de ndax sama rak sama lépp la nit ko xam dafa am waaw dañu war dem ca waaw ah, seen problème si jàkka ji ah robinet a étage wala robinet bi kat war na génnee fii la wala ah, bu seen wax ko am 60 ans ak li ci kaw soxlawuñu seen wax ci làmb xale yi ñoo moom làmb waaw ñu ngi noonu xale yi ñoo moom làmb waaw soxloo ñu ñooñu am allah nee naa la tey ki ñu dalal tey ci Dakar People spécial muy Batika Batika ku ko xam ne xam ne macha allah wax dëgg yàlla moom parcel rek moo ko ñëw moo ko ñor xale yi parcelle ñoo ko mais Batika gis nañ heure bu ñu joxee Reug Reug micro mu ne euh, Modou Lo lu muy gën di toog muy gën a metti ci moom nga Reug man dama koy gis chaque jour am da day tëkkul lu ko neex rek lay wax dama koy ah, di ko maa ko man maa ko mën man ko Reug Reug fii kenn mënul kenn yàllaa mën ñëpp waaw mi ngi noonu kenn mënul kenn bëri na fekk saa Thiès gis ngeen na làmb ja demee woon mbër da amul ay maaman kii nii laay def ni maaman li moo moo du booleeg nit wax moo du ñun xam nañ ko moo du ñun xam nañ ko boolewul nit ak wax mais bu at bi sifflé nga xam ni kuy móodloo mais ay moo bu ñëwee nii laa combat ba mu bëree nii ak laa bu doon man du ma daan tànk gis nga yooyu yëpp ñun xamuñu ko ku toog sa kër lekk sa yàpp ba suur ah yor sa jabar boo génnee ñu tegal sa pliant wala ñu woolo la boo la neexee loo neex mën nga mën nga ni sax yaw demoon nga xare ba dara dem yow laal concerné ñun yooyu yëpp concerné waaye Modou bu sumee di ngeen xam kuy Modou mi ngi noonu yooyu baax nit dëgg la xam nga bëgg bës rek Modou Lo boo bëggee bës da nga naan ci ay waaw waaw moom du gën a yàgg ci Modou moom ñu muy yàggantee mooy ñoom Franc ñoo ñooy ay ñoo ñu lay bëree Modou Lo du bëree Franc bu rëg-rëg soxlawu ko waaw ay moromam ngi noonu ay ñoom tal fa ñoom ñooy defante rek ñoo ay xa ñoo génnoon ay Serigne seen biir mais Modou Lo defantewul ñoom seen biir du moromam Modou Lo ñu ma diw du làmb lii maa ko mën nii laa koy def moo ko mën yëpp na jël soxlawuñu loolu ñun waxuñu loolu moo ko jël mais doo taxaw moom ca arène ba yooyu am nit da am comportement am waxin boo am da koy wax ni mu dégg ko am de man du ma dépassé kenn kenn du ma dépassé waaw bàyyiwuma kenn yàlla ku ma woo géej quatre heures matin fa laay jullee timis kon yooyu suñ koy wax nañu am ci siraatal mustaqiim ak yar ak teggin fii dëkk bi kenn mënu xuuxal nit kenn mënu def dara nit nañu bàyyi nit ñi nekk seen jàmm nekk seen salaam rëg-rëg tey mbër mu war a génn wala dara waroo sax bi bër say wax ñun ñu ko xam da war a lëlu jàpp sa njàmbur xam li ma xam hmm gën ba say wax lu ñu la wax ne hmm boo koy def vraiment yàlla dina dimbali mais luy palaat bu ñëw rek nga ni yaasal wala supp kànja wala domadaa wala ceebu jën wala maafe loolu tey mbër muy génn du def loolu nit da ngay nopp jàpp sa njàmbur mi ngi noonu tey Modou Lo dafa soo koo gis te dara dafa jàpp njàmburam mbër mu muy bëree yaay moom wax ji moom du ko wax day nopp jàpp njàmburam waaw de mais dox tool fa ngay waaye roi des mais dafa am ñu mu war a bëre ci laam nit ñi nanguñ ko mm-hmm. du njaaw jël ko jox ko bombardier mu tëb tëb rek daan bombardier fu naa jël bombardier gars yi nekk ci bi di wax la demee rek am dañ nañ la bëgg a jël jël soxla jëlul keneen mm-hmm. bombardier mooy komba mooy tax dina fees dina neex barke alxuraanu kër dina fees dina neex barke rasulaay combat bu neex la ndax fii la ñu xamee ne bombardier yi day continuer ci laam wala day bàyyi fii ngay xool ni Franc tey dafay am mi ngi noon tey Franc combat bi ko gën a lépp tey waaw ah, mi ngi noonu te bombardier du di nga gis tey xeex bu neex a neex franc nekk fa di léwato wala di jéem a xool day jëlee tànk bi day at bi day souffler franc dal ci kaw léwato wan ko ni man xale laa dama war a dem jàll te ñu seen bëre yu ngay xool ndax franc mën na dem wala di nga koo xool ne ni mu ko bokku sax mais franc dafay ne ay léw laa ilaha illallah baal ba làmb seetaan nga rëg bombardier seetaan la franc bombardier nga xam bokkuñu laa la franc dafa fend ci làmb daf day xeex day bëre day xeex day bëre xale la yow moo moom yaramam moo moom yaram mais tey bu ñuy wax jàppante ñu xam làmb ñun ñëpp ñoo ko moom nañu waxante dëgg jàppalante nit ñi promoteur bu di rayante góor géri jëfam ba tëgg làmb jàppale ko mais promoteur mënul a jël lépp sponsor def lépp nga naan si saboté lii du làmb ak lii loolu rafetul la day mel soxor la loolu mel soxor la ñoom ku ko ku ci tëggoon tey duñu bëgg ñu may la noonu loolu baaxul bugg man bëgguma lool barke alxuraan karim dama bëgg nit buy def def ngir yàlla def ngir yonent bi Mansour ba di ko ñaan mention spéciale li mu mën ren yàlla na ko mën déwén nit ku baax a baax baax yaru jox nit exemple am hygiène de vie am am am comportement am yar ak teg waa jàmbaar ñëpp tey yaru lu mu wax ni da ngay xam ni wàlliw la tey ñu ngi koy ñaanal daal yàlla na ko yàlla yëkkati ci taw tawfiixu Seydina Mohamed koo kenn mënu koo werante ci parce que dafa rafet ni si waajuram la ko gisee père barke alxuraan kër ñoom daal mënuñu leen a fay passé unité 1 ba 26 ñun daal man daal barke alxuraan man ne ko man xooma kenn man ñu xooma lii xo man daal ndax yonent dafa am lu wax ci dëkkandoo nit da ngay fonk say dëkkandoo ndax ñet nit génn àdduna ñetti dëkkandoo ñëw témoin la sa àjjana tey leer na mi ngi noonu loolu man foog ju noonu laa koy jàppe nit dañuy jàppalante am comportement am yar xam de ñëpp tey Mansour jox leen jox na nit ñi cër jox na ñi respect doo ko tey nu mu nekkee doo ko def ko neexoon tey day dem feneen toog dem ñu dem jënd feneen kër toog mais lépp ngi bëgg parcelle ñu ñëpp a bëgg parcelle Parcelles Assainies 1 laaj mun la Mansour Ba koo laaj mais xale boobu social mais kii yàlla na gudd fan kii ñëpp moom nga koy ñaan kon loolu comportement la tey bu ñëwee ba góorgóorlu tey jàppale ko ñoom bëgg a tëggaat dimbali nit ñi yow danga ko war a remercier am promoteur yu bëri bàyyi nañ seen dooma fi ne mais yow tëggoo làmb sa famille tëggul làmb nga naan lii làmb ak lii du làmb loolu baaxul man bugguma loolu nit da am yar am comportement ndam yàllaa ko yor kenn joxul sa bopp ndam waaw kenn joxul sa bopp ndam waaw yàlla mooy joxe ndam mooy xool ku ko neex jox ko bu doon nit mooy joxe sa bopp ndam kon nit du feebar waaw mi ngi noonu nit du aj ko làmbam nit du aj leen combat bi loolu baax nañu delluwaat suñu xel xam ne daal boo amee combat ñaanal yàlla yaay may làmb ndam yàlla ma yàlla may ndam mag ñi nga xam ne ñoo ne ci làmb ji ak seen âge bëri na ah nañu fexe ñëw ci jàkk yi di julli ndax julli jàkk dafa baax loolu rek lañ leen sax mais tey mënoo ne ca làmb ji di analyse yoo xam ne am de dañu war a analyse ci jàkk yi ci diine waaw waaw mi ngi noonu gàmmu gaa ngi ñëw nu ñu war a wax ne ah màggal gaa ngi ñëw wala yooyu la war a def lijjanti am de wala da waaw mais dañu euh, analyse yu neex yëpp ñoom ñoo koy def waaw paa dañu wax waaw mais tey ñu père paa yi bëri na mais mën nañu toog seen kër julli ba pare di ci wax ci daam ñoom kenn tërewu ko mm-hmm. mais ñëw ci stade foofu tey na fa wala ñu ba wax la nga daanu dara indi la kenn ñaanu ko yàlla xam mi ngi noonu mag day maytu ay xale fu ñuy grand placé mag du bokk ak gone jotaay mm-hmm. waaw mag du gone ju bokk ak gone jotaay loolu ñëw siyaare ko dem sa yoon loolu mooy yoon lépp bu ñu ko amee day am comportement ñëpp nekk ci jàmm ne ci salaatul musaxim la mm-hmm. waaw mi ngi loolu rek daal ñu ñaan askan mais loolu waaw waaw 100 pour cent parcelle bi yar ak teggin rek moo ko indi yar ak teggin lu mu la mën tamay yar lu mu la mën tamay réew mun la koo may nit da ngay yaru am teggin am di ki ki mag noonu topp ki topp toppaat suñ ko defee lépp day indi day indi chari day indi siraatul mustaqim ñëpp bëgg parce que tey mbooy yëpp tey manko ñëpp tey koo ci gis bokk ndey ak baay am de loo dafa rafet am de loo dafa rafet koo gis Modou daw taxaw waxtaan li Papa Sow ñëw nga taxaw néeg na ah mbër yu ancien mbër yëpp ñëw ku ne nga waxtaan day day rafet loolu day rafet ñëpp may entraîneurs yi koo ci gis moo gën a baax boo ci limee dangay ngay juum yaru jox mbëri comportement jox mu nit ñi fulla mbëri jëlaat dellowaat leen ko après yàlla juboo yàlla day ñëw ak doole da leen fay ak doole barke alxuraanu karim billaay wallaay cent pour cent bi daal ñi ngi ñaan yàlla na yàlla def mu gën a continuer daal respecté jàmbaar xam ne lépp daal jàmbaar daal moom moo fi ne daal yàlla dimbal nañ ba jox ñu promoteur boo xamante ne muy Mansour Ba daal ah ñu ngi koy ñaanal wér ak gudd fan ak famem léppam daal ak staff jàmbaar bi yëpp fàttewuñu kenn daal kuñ ci lim da ngay jum dafa rafet gis nga gis nga yow kii nu mu tudd man su ma la xee rek man dama xam nit barke alxuraan Mansour defagul dara fa defagul dara dañu dem ba ñaan ni li ngay def parcelle doy na doo xam sax ku la bëgg ak ku la bañ non doy na arrêté te noppali ko barke alxuraan non dëgg la barke alxuraan ko dafa dem ba nga xamante parcelle am ah, nit ki tey booy lu ne da ngeen doo xam sax ñu la bëgg am nga xaw a wàccaat tuuti rek jël benn ah, at boo xam da ngay téye sa am jàpp xool ne ñi la bëgg am de nit ci sànq doo xam mi ngi noonu barke ma jàmbaar dama dem ba ni président lii daal demal nopp vraiment yow ku ñëw xamoo paati xamoo dem xamoo jàppale nit ñi dafa keppee sa don veer mi yóbbi fees jël nit ñi ñëw du école yi ba ma bàyyiwul dara ba daara alxuraan yi bàyyiwul dara barke alxuraan kin parce ku ci tëkk Mansour Ba barke Serigne Touba Mbacke billahi wallahi wa taala balaa am trois secondes mu bombardé la ci parcelle barke bokku la sa ñoom bokkuñu sax aada bokkuñu cosaan ba xuuxal yee fi ne rek so bil barke aroon balaa trois secondes mu bombardé la jaarate ko billaay walaay nit ñee fi ne rek image yee fi ne lay image lay woon du dëgg ci ñoom barke alxuraan image Mansour moo wér moo dëgg barke alxuraanu karim yàlla na ko yàlla defal jàmm ci tawfeex yonent bi waaw merci beaucoup Batika euh, Aïcha Batika nag dañuy ñëw ci li nga xamante ni mooy actualité bi yaa ngi seetaan bete bete yaa ngi koy seetaan ma man soxlu ma yéen du seetaan yooyu yooyu ah, xam yooyu moom xam naa mag ñi ñëw ci làmb yooyu yooyu man soxlu ma seetaan waaw waaw waaw man seetaan man yu ay doo de man du ma seetaan yooyu man xale ma maa dem ma mag tey sama genre la dëggee ñu ma ma ma maa dem maa dem ba dëdd loolu ah. maa dem ba so man du may si sama yu bëri duma si seetaan yu waaw mais nag boo ma ci lan la ñu def naa ne lii baax na wala baaxul mais yooyu du ma amuma jot am waaw youtube bi youtube bi ma def xasaayit moo ko tax a jóg ah. ay jës bu ma maa yi mu xaddi man moo ko xasaayit suñ ak alxuraan moo tax moo ñoom laay jàpp leen seetaan ah. waaw mais sama bu ma demee ba gis sax ay dama leen ful camp fële. wala ma ne canal wala ma ne Youssou dama bëgg sama chaîne yii bu mu si duggati. Ah. waaw mais théâtre yooyu moom ay ñeeñoo géer yooyu yëpp loolu amul benn ndax yàlla moom xamul ñeeñoo xamul géer ku ko ragal la xam. waaw mi ngi noonu yàlla xamul ay kii ñeeñu la kii géer la kii waalo waalo la kii euh, basaari la kii balanke la yooyu yëpp yàlla xamul yàlla koo xam ki ko teg ci comportement ki ko ragal rek la yàlla xam waaw mi ngi noonu moo tax yombal xam kuy dugg àjjana du ñu lim tur waaw yonent bi jàpp bi nga daan jàpp mooy biree ba yonent bi buy gis xeetam noonu la leen xàmmee di leen ramu leen dugal kon fee amul tur amul sant amul li mi ngi noonu jëf rek ragalal yàlla bu ñëwee woon la moom waaw waaw waaw mais maam yi de maam yi nga xam ne ñoo amoon fulaak fayda daawuñu ko daaw daawuñu wax mais yeneen maam yi wax foofu ñoom ñoom góoma yàlla xamul lool ay ñee ñooy yooyu xamuñu ñee ñoo xamul gër ay kii yooyu nit ñee wax kii ñeeño kii gër kii yooyu xamul loolu lislaam daal li ci nekk mooy li lislaam santaane julli rek am yàlla koo xam ku ma ragal man daal noonu laa la ko mën a attee daal yàlla ku ma ku ko ragal rek la xam ki ne ci waxtoom di julli subaa ngoon ni aw si siraatal mustaqim kooku yàlla moom la bëgg moom la yëpp yonent bi moom la bëgg mais kii lii laa kii am na ñeeño bu gën géer am na géer bu gën ñeeño am na loo gis rek am na différence noonu la mel ñoom ñëpp yàlla yaa yàllaa leen bind non bañanteeg liggéey rek fii ku liggéey ñu maanaam boo boo boo liggéey nit di liggéey danga koy bañ am de déggoo li ma tey booy liggéey te kii liggéeyul day ñaan yow nga sa liggéey fa xasalu ndax moom amul liggéey fi am lamb ji kii tëgg na lamb ji ñu ngi koy ñaan pour mu mu ba dem ñibbi këram ñoom ñu xool seen nitéw loolu rek moo fi am ci lamb yooyu loolu rafetul nag walaa caag yàlla dalay dëpp dalay troxal ankay benn yëpp benn rek ma yëpp benn la tey promoteur bu fi tëgg rek ah. ah day mel ni Gaston kenn mënu koo bañ waaw day day mel ni Gaston Mbengue kenn mënu koo bañ ah. dafa yàgg tëggal ñun ñëpp ay lamb Gaston kenn mënu koo bañ ah. waaw suñu papa Gaston kenn mënu koo bañ ci làmb ay sëñ Modou ñaax ñëpp moo leen génn da nga gis ko xam ma sa bañ mi ngi noonu dafa man li ma la waaw mi ngi noonu mais xale yi ñëwaat ci biir ñoo ci am benn genre jikko bu sew boo xamante mi ngi noonu xam am sa premier promoteur yi am man xam naa ne bu baax a baax kii promoteur maanaam dafa bëgg a jàppale nit ñi doomu aadama yi waaw am nañ cinq promoteurs yëpp rek am nañu ay promoteurs mais ki meen yëpp ay promoteurs ñi ngi jàppalante ni mais ki kii da cee rawati Mansour jàmbaar kii yoo xam kii dafay supérieur yow gis na bu tëggee yow kii da cee raw waaw da cee raw barke alxuraan ko ay combat yu neex lay tëgg du yoreel nit doo ba wis sa jàppale lépp barke alxuraan ko loolu da ngay dégg sax gars yu bëri ay mbër tëggal ne làmb dañuy wax lu koy xam foofu naa da ngay man doon man du man dëgg rek lay atte waaw ne ñu mbëri ne bokk ndey bokk bàyyi ñooy neexalante seen biir ñooy mayante xaalis mais bu leen public bi jey ñuy toroxal sa morom morom di ko ñàkkal suuf sa kii daan naa ko li wala kii da gis naa ko daan mbër vingt fois ba ñu demee arène amoo fa seconde da laa paqueté sànni fële yooyu amul njariñ ci làmb am de ni da ngay am yar am comportement am dignité sa tëdd teel a tëdd teel wàññi sa wax wàññi sa coow booy dem yenn kaat boo ko defee yàlla mën na la dimbali yàlla mën na la dimbali tey sa Thiès a ngi noonu mbër moo mbër mu tey mbër mu am attaque la ci làmb saa Thiès mbër mu am attaque la ci làmb non noo dëgg la mbër mu am attaque la ci làmb waaw saa Thiès neexut a daan ndax man damay jàng mbër barke mbër dëgg la te léewtoo saa Thiès benn la ci kër àddina te dëgg mooy saa barke alxuraan mbër dëgg la man ni may vision mbëri man dama koo xam amul ku mënta daan ci làmb mbër dëgg la te doo ko dégg mu wax dara am na yar am na comportement am na dignité am déet na am na diina min daal Sa Thiès daal man man du ma fa mais nit ku ma ko gisee noonu ci làmb bu ko yàlla dimbalee dina dina dina dina dina kontaan ci làmb daal mm-hmm. dina kontaan ci làmb mais mbër waroon ne lu nga lu lu ñëw rek nga bëgg ci dugg mm-hmm. lu ñëw nga ne am nga ci wàll wala am nga ci pas de responsable loolu c'est pas normal mbër da ngay ba lu la yàlla jox Sa Thiès soo xam gàtt na mm-hmm. tuuti na du dépassé du yàq làmb da nga koy def na lu muy def ñibbi mi ngi noonu ba ah, lu ma am jël loolu mooy mbër loolu mooy mbër mais mbër munoo fi ne diw def na ni oto bi panne na fii clando bi dugg na fee R4 bi dugg na fee réeroo démb diw li am de bu analyser yow sa analyser ak analyse ñu yàlla bokkul yow sa xam rek ngay wax wala sa waaw noonu li loon to mais dañu defaraat nañu defaraat làmb ji promoteur yi nañu defaraat làmb ji mbër yi jàppaat seen ñàmbur wàññi seen wax seen wàññi seen kàddu gàtt ñëpp jox leen cër jox leen respect bu ñu ko defee ñëpp daal dañuy am jàmm daal man dégg waaw Tapha Tine Balla Gaye tey làmb bu neex la tey Tapha Tine Balla Gaye combat bu neex la nit ñi soxla nañu combat boobu la mais Franc Bombardier gën a neex ci làmb non boobu gën a neex non dëgg la non sama déedéet loolu non barke al dafa neex barke alxuraanu kër billaahi wallaahi ta bar combat Bombardier ba muy bëri balaa gënoon nekkaat dama doon jëlaat saxaw ci porte ba ñu mën a duggal man xam naa Bombardier billaahi fekk na ma fa booy bambara ma may bëri saanu fekk na ma fa waaw ah, duma ko fàtte mu barke alxuraanu kër bombay boobu yàlla na ko yàlla yërëm booy ba xare ko ajal booy bambara invité ko bombardier ñëw ci mappanu ñaari tali kon kay xam nga ni man xam naa leen ñooñu billaay wallaay tax dama seetaan ku ne million tey nga xam tey loolu tey combat yow bombardier mu ñëw rek ah ñëw taxaw ci lam franc ñëw parcelle ëmb ko 1 ba 26 ah bi jii li mbay yoof ja barke alxuraanu kër non barke non non combat la de soxna si fa ngay xamee ni franc mbër yi moo leen man billaahi wallaay taala xale bu ndaw ndaw la am na doole franc lépp lay bëri non bu ñëwee bi la bombardier ñëw tey góorgóorlu ñëw am indi entraînement taxaw non tey dama bëgg lamb jooju ñu dóorante presque cinq minutes barke nga xam ne fi nga xam ne franc nit mënu ko ci at di nga xam ne kii roi des arènes dina ko indiwaat parfaite fii barke alxuraanu karim billaahi wallaahi te mbër la de franc mbër dëgg la waaw bombardier nag ak ak Balla Gaye kii waaye tafaatee bom combat la ndax bëri woon nañu la daan ko ñu bëriwaat Balla daan ko tey tafaatin bu ñëwee dajal waa bool ñëpp taxawaat ñëwaat gis nu mu def Boy Niang ah tey nu mu def kii nu mu tëddi waay waaw nu mu def booy ñaar nu mu def kii waay deux sorties mi Eumeu Sène ñu xam ne Tapha Tine mii am na doole te temps yi donc koy dóor sax mu mel ni dóoroo ko ah barke ah milla Bombardier tey am na gëdd ah xam naa bu ko Bombardier gëdd bu ko bu ko Tapha Tine gàllagee gëddee bu Tapha taxawee ah man ni làmb combat bu neex a ngi nii waaw ah, mi ngi noonu loolu rek laay fee waaw Boy ñaar Reug Reug Boy Niang Reug Reug tey boobu boobu tey boo dee xool ah, mën na nekk combat mën na bañ a nekk combat ndax sans dépend ci booy Niang waaw booy ñaar daan man mbër la def naa lu ne daan naa ñëpp ci làmb ñëw tey yàlla dogal Modou Lo daan ma tey du ma xoolaat sama ke damay xoolaat koo xamante ba ma gis ci génn noonu rek la demee ah mais ñi am na mi ñu naan làmb la mais am na ñoo xam ne naan du làmb ndax waa FF booy ñaar nanguwuñ ko waaw mi ngi noonu foofu rek nga koy xoole gis nga nit dafa am loo xam dem teg nañ ko ci dëgg ndax Boy Niang dafay def pour bu ko Modou Lo daan rek ñu bëgg jël Boy Niang ba koo def benn table buy jaay lu ñu wala soble wala déedéet Boy Niang mbër kaamil la barke alxuraanu kër mbër kaamil la barke mën na bëre te fi biir action mën na la daan te doo yëg ni daanu ko combat am yu ba dama koo seetaan te waa Pikine bëgg nañ ko ah mi ngi noonu len na dama daan damay may waxtaan sama papa sama staff toog a ah, ñu xool lii ma Modou kat champion war na daan koy daan dama ne dinaa xool bu ma beneen alir bu gën a garaaw toog ñu ne staff booy ñaa daan man bu ma nekkoon booy ñaa mbagama la du bëreeg rëk-rëk bari non ba ko booy ñaa ñaata combat la am ñaata combat am mi ngi noonu du ma tëb jël diw jot du ma du ma bugguma ko sax du ma bëgg du ma ko bëgg damay demaat xool ci VIP yenn VIP ma jëm jël leen waaw waaw waaw waaw waaw waaw tey de tey waa tey mën na toogaat xool beneen VIP toogaat comme ay tafaat yoo ñaan ne tafaakat may ma sama revanche jiwkat yaa ma daal may ma sama revanche loolu waaw mais ankay mais ama euh, bo bo Balla Gaye Issa Pouye daan na ko matul at ñu bëriwaat kon yooyu boo ko fàttee man fàtte man option dama am dama am mémoire de lecture dama am mémoire de lecture man du ma yor kay du ma bind miyoo bu ma waaw dangay ngay gis sax plateau yi ñeen di bind a di xalaat di wàllu bu bindal ma tuuti dat man du ma ngi noonu waaw non doo bokk dé non tafaatin booy ñaar dafay dafa def loo xamante ne si làmb dafa yéeme mm-hmm. waaw nit bu mu daan rek ah, Ama Baldé it rek moo doo daan na ko mais dafa def ci làmb loo xamante ne na booy booy ku ci bëgg bëreeg moom da koy jox cër jox ko rek dina xam ne moom mm-hmm. mais làmb nañ taxul nga bëreeg ñoom waaw loolu laa la xamal nga làmmañ taxul ñu bari ñoom ndax Ama Baldé mbër la Boy Niang mbër la ñu waxante dëgg Modou daa ñëw nag yàlla bëri ñoom yàlla Modou yaakaar ne Modou ku mu daan rek da nga koy yóbbu marché ñu koy jaayir sonde wala bu wala ndox wala ndiir mbër lañ dañuy defarwaat taxawaat ñëwaat génnewaat beneen sotti ci làmb man maa la wax lii signal te bu ñu defaatee sotti du leen dab noonu nga koy ñaan ni mi ngi noonu tey fa doo booy ñaar def li nga ne am ah, dana jéem rek ñoom ñoo xamul làmb ñoom ñoo xamul làmb tey Franc Reug Reug dañu bëri ci mbapat kii daan kii daan kii tey ñu bëri bokk tey booy ñaar booy franc daan ñu bëri daan tey kan la daan tey caatu yoof caatu yoof xool Serigne Ndiaye 2 ah Tyson 2 non noo ñu xoola ponkal yooyu mu daan te ku ci waxoon seen avance doo ko jël combat bu neex Forza bu Fass ñoo nekkoon faa ah Forza 2 mètres nangam ah tey bu daanee tey Forza tey Forza tey boo dee xool moo Coent Forza moo gën a supérieur Coent te Forza yi noonu franc du koo daal bu retourné waatee di ko jël bu retourné waatee di ko jël dañu naan leneen ak leneen am da nga koy xool foofu rek barki alxuraan kër ah, moo gën moo gën a féete mi ngi noonu te mi ngi noonu daf koo daan kon nañu xool làmb ji lépp naxante la ak jabaako mais làmbañ taxul nga bëree ki rëy làmbañ taxul nga bëree ki ngay am yar ak teeg ñu wax la mi ngi noonu ndax booy ñaaw fa mu ne ci làmb du yàq du papaxee carrière Ama Baldé waaw ba mu ba mu bëree Gris Bordeaux ba ñuy waaj a bëri ba mu bëree Zane sax dafa aj laam ndax bilees ndax xam ne bu ñëwaatee sorteem day métti moo tax ba mu xamee ne yëg na loo xam yaramam féete na mbaggam sutante nag dafa reporté waat làmb ji waaw pour bu ñëwaatee wane bi maan dynamique boo xamante ne dama juumoon waaw Gris ko maa ngi lay xaar waaw di nga fekk fekk nga fi dynamique buy continuer ba léegi am de di nga xam ne la tey loolu làmb la loolu mooy làmb man xam nañ lu jaar mais nit ñi lu jaar man dama xam ma jàpp di ma yóbbu mbapat may bëriñ ba muy bëri Ousmane Diop mappan fa la ma fekkoon yooyu yëpp kon dama xam ëmma sente yëpp mi ngi noonu ba muy bëri Ousa Sow Ousa Sow ëpp lu mu daan mais arène ëmma da koo daal yëpp fi ma fekk Jules Balde seeni combat yëpp saa yarax yëpp fi lañ ma fekk am de Antoine Bakhoum ba muy ñëw di bëri mbapat fii la ma fekk Tyson 2 bu mag ba te doon ànd ak Tyson nekk États-Unis fii la ma fekk Yaaye Jàmme fii la ma fekk te yow booba ay xale ngeen juddoogu leen xamagu a nga dëkk ba expliqué leen Dakar fii kon yooyu bu ñuy wax dañuy waxante dëgg waaw man dëgg booñ ciy dem dëgg rek laay wéyee moom laay dund waa waaw yéen a ngi dëkk ba excès gu leen waaw ay jooy waaw waaw mi ngi noonu yéen a ngi jaay ndaamara si dem olom excès gu leen booy boo oto yi di dem Touba yooyu ngeen di jaay ndaamara wala Fatick ak yooyu mi ngi noonu excès gu leen kon doon <laughs> yàlla yàlla def jàmm yàlla yàlla def jàmm yàlla yàlla def jàmm tawfeexu Seydina Mouhamed kontaan naa bu wér jërë ngeen jëfati waay waaw xam naa mooy problème waaw dégg waaw dégg waaw waaw dégg naa xam nga tey giri lu mu wax tey Maodo lépp mënuñu ndax magam la tey nit nekk Europe di ko manque de respect ndax dëgg ndax ñaar ñu bokk ndey ak baay kenn mënu dox seen diggante waaw nit ki tey ku la waxoon tey sa mag bu jigéen lu jaaru da nga koy attaqué waaw lu leen yoon may ngeen guux ko wala ngeen jël ko waaw min kàddu noonu la demee daal waaye di ñaan coow li yàlla na ci yàlla wis ndox mu seet daal Maodo taalibe la daal giri taalibe la daal xale bu jigéen bi xam ne lii daal erreur la wala dara daal mu ñu wax ji ñu yemale ko fi mais wax boo xamante yaa ngi wax li ba kenn gisul dëgg kenn xamul fu dëgg féete waaw noppee ko gën julli ñaan yàlla daal nit ñi may salaam du nekkaat ci liggéeyam entraînement waajali kombaam am girip entraînement waaji komba wax ji daal am de bëri na wax wax wax rek na man daal ci ñoom ndax Maodo bu baax laa ko xamee giri ku baax laa ko xamee femme bi nag jotuma koo xam waaw dama bëgg yooyu yëpp dañ ko teggi ndax daf nit rafetu nit mën na la jël sax nga woo waxtaan ci suuf di yëg li mais yi yuuxoo loolu c'est pas normal girib lu baax laa ko xamee Maodo lu baax laa mosuma gis moo jël li wala Maodo kon yëpp dañ ko defaat si straat mu xam ne yàlla noppi na ba pare daal bàyyi loolu ñuy wax amul benn weerante bi benn njariñ daal waaw yàlla na leen yàlla dëkk bi yàlla na fi yàlla wis ndox mu sedd képp koo xamante ñëw nga ci dëkk bi bëgg koo taal wala dara yàlla na la borom bi làq fenn teg la fa natt boo xamante boo jugee di nga sa jàkka ja ngay mujjee wala armée daal si Mohamed ngeen jëf waay. <laughs> waaw waaw bi loolu daal boobu laa fas yéene daal yàlla def leen jàmm daal waaw man lu diine bëgg rek ci laa ne li lislaam mënu ma nag waaw laay dox na mënu ma nag ndax man mii toog sa natt mën na ma dal waaw man mii toog sa natt ndax génn gu ma ci natt waaw ndax yàlla moom nit ki bu nekkee safaan da koy ñaanal am de bu nekkee ci lii da koy ñaan ndax ñun ñëpp gën génnagul ci natt segam ñu ñu mag ak suñu pàpp sax génnaguñu ci natt yàlla moo yor natt da koy teg sax xool ndax yow julit nga wala julitoo génnaguñu ci dara daal di ñaan yàlla nañ ci yàlla jubal daal yàlla nañ yàlla jubal moom mi yoon jub daal yàlla nañ yàlla jub ndax képp ku ne yàlla ñu yàlla may ah waroo cootee kenn ku dul Seydina Mohamed boo ci pare teg ci sa sëriñ loolu daal la diine boo xoolee rafet ndax boo ne yàlla na ma yàlla may ah ci kàttanu Seydina Mohamed moo ci a topp waroo cootee keneen daal bu ñu ko defee dina nekk ensemble dina ànd daal siraatal mustaqiim nekk fa mu nekkoon kenn mënu koo dind tey mënoo tudd yàlla ba pare di na ma yàlla may alal ci ci kàttanu Seydina Mohamed lu rafet lool la nit ñi bëgg loolu la Sëriñ Tuubaa bëgg loolu la maam li maam laay bëgg moom la alaaji maa fi bëgg daal yàlla nañ ko yàlla jotale ci tawfiixu yonent bi tawféexu yonent bi barke sëñ Touba waaw. merci beaucoup waaye man de Aïssa loo ci déggu sama jaar bi wadd na xaaral ma for ko ndànk daal di koy takk ndax man Fatick fi mu nii wax na ma fi ab benn góromoo nee na man boobu juddoogu ma maa ngi jaay socc <laughs> socc xaw ma ndox barki nit bi ay lii naa Batika Batika Batika rey na ma barki nit bi ca kontaan nañ ci moom bu baax a baax. nee naa la émission bi zéro stress la ak mu ñëwee rek noonu lañ koy defee ñu ngi jaajëfal ñëpp di kontaan ci ñëpp di bëggee grand champion Batika li may faral di wax rek bàyyi na làmb ba euh, la conseil la bu amee lu mu lay wax mu wax la ko kon jàmbaar a si kanam macha allah suñu borom bi yokk am am beeg mën-mën bi suturaal ko defal ko jàmm defal ko wér kàttanal ko ndax nit ku baax la nit ku oyof la nit ku disponible la nit la koo xam booy def fa mu émission ci biir émission lay wax dëgg mais day dalay reetaanloo ba ngay bëgg a demee ñu ngi koy jaajëfa di ko kontaanee Batika bégg nañ ci yow bu baax a baax macha allah saa su nekk nee la Aïcha laa ciy àndal moo ne ci li nga xamante ne mooy caméra bi Aya moo ne ci li nga xamante ni mooy micro bi di jaajëfal ñëpp di kontaan ci ñëpp di wax merci beaucoup ba beneen yoon ci beneen émission beneen émission spéciale lamb jërë ngeen jëf